yaay booy nuyu nañ la. waaw fay la. sant bi. man Mati Gueye laa tudd. soo dëkk ci koñ bi. parcelle laa dëkk unité 25. ban nga fi ñëw di féete si victoire bi. ah sama sang bi démb ba léegi nii lañ fanaane tabaarkàlla macha allah démb ba tey di lañ fanaane. démb ba léegi nii lañ fanaane sant sunu borom rek. sant nan ngeen ko sentir bi Khalifa Sall dee ñëw di jub si ci yéen. xanaa kontaan kontaan goo xam ne kenn xamul fu ñu koy wax waaye nag xam nañ ni lépp yàlla la. sant sunu borom rek sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sant yàlla bu baax ni alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilahi jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla sant sëriñ Babacar mi ko sama nijaay tuddee xalifa Abacar Sall sëriñ Babacar lañ ko tuddee en direct barke yonent bi tuddee wuñ xalifa mi jëlaat xalifa non non en direct sëriñ Babacar ba mu jógee fi Tiwaawoon la jëm sant sunu borom rek sant suñu borom bu baax a baax. affaire bi bett leen dafa mel ni xaaroo leen ko woon nag. non waaye yàlla rek lépp yàlla la maa fii lépp yàlla lépp yàlla la. sant sunu borom dañu ay taalibe seex dañoo gëm seex gëm yàlla gëm yonant bi gëm alaaji Maalik gëm sëriñ Babacar sant sunu borom rek sant yàlla bu baax a baax lépp sant la ñu daal sant rek ay mbokkam sant di sant tamit àdduna sant àdduna yëpp nag ñëpp taxaw rek ñëpp taxaw ñëpp taxaw. catholique yi macha allah ñoom ñëpp taxaw sant rek sant rek Grand Yoff bi ba léegi kenn nelawul boobu ba léegi kenn nelawul léegi rek jënd nañu mat ñaata ndékki lañ jënd fii ci ay ndékki kenn xamul na ma toll waaye yow sant suñu borom rek sant rek ñu ay jaamam lañu rek nii rek moo nu war yow suñuy mbiib di ko sufleel di ko tagg di ko way magi fant Kumba Njaay baaraay baayam ayama ca ndaan borom ndox mi si su kooku mbayee baayam awaña nga yaayam Mariam Wade nga mooy maamam sant sunu boroom rek. tur bi ak sant man Ngoone Ngingue laa tudd. nan nga yége xew-xew bi fi wàcc si yéen démb. xanaa kontaan rek sama waa ji monsieur Koumba Ndamba mañ ma du ba caam tubaarkàlla waalo waalo boobu tubaarkàlla ki nga xam ne dawul mimutul xiirul ŋaayul dara naqariwu ko dara mittiwu ko bala nga ko war xam nga fekk ko tribunal bee moo ñëwee sax di indi beneen kanam boo xam ne sax kanam bu ñagas la sax mu dàq la boo ko naree di jooy mu dàq la moom yàlla rek la gëm yàlla rek a ko ñor yàlla rekk la gëm waaw xalifa nag dañu koy ñaanal yàlla gudd fan ko wér ñun daal xam nañ fi mu ne lu ñu bëgg nii ñun takk nañu suñuy dàll takk nañu suñuy sër takk nañu suñuy ndigg fas yéene nag xeex baa ngi doo ko jot xeex ah xanaa tarawaaye rek dugg biir pale rek moo ñu ñor fi mu ne nii du dara nag lu dul dugg biir pale rek moo ñu intéressé dara ñoruñu. mais dañ doon wax ni buñ ko gracier du mën a nekkati kii candidat ci élection présidentielle. ah kay dina ko nekk bañ a nekk kenn dina ko nekk incha allah lu tax duñu ko nekk dañu koy ñaan yàlla rek ñaan rek fi am yàlla rek fi ne yàlla rek fi ne dara new fi lu dul suñu borom yàlla mi def ba tax mu génn mën naa def lu raw waxuma la président sax mën na ko raw lu ko def yàlla nañu yàlla may nag ñu fekk lépp tatal ko moom na am wér rek ak kàttan moom na am wér rek ak kàttan lu mu joxañ rek ñu dagg ñun jigéen ñi ñu ngi nii lu mu joxañ rek ñu dagg ñun moom rek moo ñu ñor dara ñoruñu. ba tey yéen a si ginnaawam di ko jàppale tàyyiwu leen xàddiwu leen génn na nag léegi ban conseil ngeen koy jox. xoolal gis nga ñun ñii dee si suñu laal dee ci parti bee ñu ko gënal tubaarkàlla conseil bi ñu ko koy wax mooy tubaarkàlla macha allah la mu xamul woon ba mu duggee ci prison bi xam na lépp. te tubaarkàlla dina gën a mën a taxaw te fa mu taxaw fu mu teg tànkam ñu gën faa teg suñu tànk moom daal ñu moom na jiitu rek ñu topp ci na jiitu rek ñu topp ci am fu mu joxañ rek ñu dagg ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla may nag taxawaay bu dëgër ak wér suturaal ko suturaal mboolem jullit may ñi ñu fekkee lépp ci darajay Muhammad yow an sa frère mu ngi ci kaso bi neexul an sa frère gëj goo gis ma nga 100 neexul bu doon sa sago foo tollu toll di ko woo téléphone di waxante moom di saafonte ak moom muy ñëw ñu nekk suñu réunion nekk suñu activité politique mais loolu yëpp ñu xañ ko ko ñu dundee li ñu neexul waaye lépp ñu teg ko suñu borom ndogal la ci destem la bokk ci yoonam la bokk mën ñu ci dara yàlla mi nga xam ne nag moo ko sàkk tërale ko boobu cër ba mu jeexee jeex na. li ngeen wax Macky Sall ci gracier ah, sant ko rek sant ko ndax lépp lépp lépp. fii la ñu fekk ndax képp ku ne doomu aadama doon na yàlla jiw booba da ngaa baaxul dañ koy sant rek ni ñuy sant ñëpp rek dañ koy sant xam na borom baax la moom it ndax xam ne xalifa rakkam la te moom ak xalifa am na fu ñu jaar ñun xam nañu ñun ñu nekk xalifa Sall daañu tase ak moom ville de Dakar moom xalifa ba moom Macky Sall la li may wax bu ko déggee waxoon naa ko dina xam dëgg li ma koy wax am na daanañ tase ville de Dakar. booba la xalifa Dogg def premier maire de Dakar pour na bu jamono doxee di dox di dox ba problème am ba mu ne ràpp Khalifa ci kaso ñun de amuñu doole mënuñu wante yàlla mii ak suñu wasila Serigne Babacar Sy lañ jël lépp teg ko ci loxo ba mu yombee rek neex na. salaamaaleykum mbokki internet ci bpactu point com ñoo ngi leen di nuyu comme ni ko gisee nag démb benn nouvelle moo fi wàcc dañoo toog ba si yàgg ñu gis benn lettre gracier boo xamante ni président Macky Sall yëkkati na ko jëmale ko ci Khalifa Sall ak ñi nga xamante ni moom la ñu jàppandoo woon ci kaso bi mu nekk loo xamante ni nag sénégalais yi ñëpp doon ci résoudre démb ba tax na ba mu génnee ànd nañoo ak moom di ko gungee masaalikul ginaar ànd ak moom fépp mu nekk mbégte moo xamante ni sénégalais yi wane nañ ko te nëbbuñu ko làkkuñu ko loolu nag waral tey ñu ñëw fii ñu seen biir kër déglu si témoignage yi ak ñi fi teew ça sa sëñ bi nuyu naa la sant naa sant maa ngi tudd Amary Ndiaye si lendemain libération Khalifa Sall bi ñu ñëw fekk la fii ci biir këram ci kaw ci biir Saalam ñu xam yow nan nga ñu bëgg xam yow nan nga dundee euh, li fi xew dem sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a sant suñu borom gannaaw bi ñu julee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Serigne Mountakha parce que dañuy wax ne ñun de Dakar jig nañu dakaar jig nañu kon lii dañ koy dañuy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan parce que Sénégal si boppam moo soxla le président Khalifa Sall. Sénégal ñoo ko soxla ku gis li xew démb rek xam ne vraiment Sénégal soxla na ko parce que nit la koo xamee ne dafa dafa dañu war a ànd ak moom pour tabax la tabax Sénégal un Sénégal de valeur euh, si dignité ndax tey ji fi mu toll nii ñëpp xam nañ li xew ñëpp xam nañ li xew eh, ba mu amee tamit moom moo njëkk a rassuré moo njëkk a rassuré dalal suñu xel ne man ambition yi ma am dara du ko weccee ko te duma jaay sama ngor dara duma ma jaral may jaay sama ngor moo taxoon man la ma jàppoon feneen laa nekkoon mais bu ma déggee kàdd yooyu dama dem ànd ak moom ñàkk naa nag sama liggéey parce que dama doon liggéey mais le fait dama ma réclamer xalifis <laughs> moo tax ñu sanctionné ma dama si mairie la ab mairie laa nekkoon waa mais dañuy sant yàlla parce que boobu ba léegi aussi yàlla bàyyiwuñu yàlla bàyyiwuñu mais gëm-gëm rek moo am solo ndax yàlla may na moom foo xam ne fi ma nekkoon mënoon naa si am teraanga bu nekk mais yàlla dafa dëng ne su ma waajur ba muy génn àddina dafa am lu ma dénkoon parce que moom si ah, employé municipal loon ba retraité man ma nekkoon si bërëb kon nag li nga xamante ji mooy lan man damay ñëw féddale sama colère ndem si yàlla Pape Babacar Mbaye ndax ku ne xamee xamante ji Pape Babacar Mbaye euh, keppaaru Khalifa Sall la meññeekoo te ñun ñun les mou tous les mouvements nationaux des pionniers ñun dañ ñun dañu dañu am un devoir boo xam ne dañ ko war a delloo Pape Babacar Mbaye te pour delloo ko Pape Babacar Mbaye dañ ko war a sotti le président Khalifa Sall man ma gëm ne le cinquième président du Sénégal Khalifa Sall lay doon dama ko gëm nag dama ko gëm lool ma bind ay not yàlla def aussi ma dem seeti Cheikh Gueye déqale kal so waxtaan ak moom euh, di dox di dox di dox di dox di waxtaan ak moom bi bind benn lettre jox ko te lettre bi je pense que après dinaa ko faisal yàlla dafa def lettre bi maa ngi ko maa bind le 19 le 22 dem le maire Cheikh Gueye jox ko ci seen teg euh, Barthélémy Dias mais xam tey tey jii laa jëloon décision pour demoon seeti ko malheureusement li xew xam kon ni dañuy sant yàlla ban dañuy wax ne lii c'est une libération pour tout peuple sénégalais tey c'est Sénégal ki a gagné. waaw ngeen di wax euh, Macky Sall mi ko gracier. waaw non ñun de dañuy wax rek ne ah def na li mu war a def. ah def na li mu war a def parce que ki nga xamee ne ba dëgg yàlla deful dara nga bëgg a taxaw bëgg a négocier ñoom mooy la man defuma dara namuma dara je préfère tëj sama peine ba mu jeex maintenant moo daal mais j'ai des ambitions te ambitions yi ma dugal foofu dara mun da tax ma teggi ko waaw kon nag dañuy jàppee ni rek mbiru politique la woon ah, mbiru politique la woon maintenant nag dañuy wax ne aussi le combat vient de commencer parce que nag ñun dafa am fu ñu jëm bon am na nag démb ñu wax xalifa dafa am ñu bare bare bare dañoo ànd ak moom tey sénégalais tey ñoo ko moom tey famille am ñëpp mais sénégalais yi ñoo ko moom te sénégalais yi am na fu ñu koy xaar comme ni mu ko waxee rek gor la dignité la te dañu bëgg tabax un Sénégal de valeur Sénégal de ngor Sénégal de fayda un Sénégal de dignité te dañu bëgg ànd ak Khalifa tabax Sénégal boobu te gëm nañ ko te incha allah fii laa ko waxee si këram bi te incha allah loolay am bu soobee suñu borom. Fatou Kiné tata Fatou ne yow lan xalifa nga. xalifa man maay seen maay seen jabar nag waaw muy sama doomu bàjjan sama papa di yaayam. lan nga doon yëg ba mu nekkee ci kaso bi at lan nga yëg démb bañ ko libéré. Hmm, sant rek bu mu nekk ci kaso bi metti na mettiwul ndax li tax metti na mettiwul xalifa man tëj ci kaso bi dafa gëm yàlla saa yoo ko seetee gëm lu koy fekkee. boo waxee mun ba bu mu mu jigéen muy tamxaar bi jur tamxaar bi laa ko def ba ma yeggee seet ko dafa na fàttali ñu ne yàlla rek mun ko sàll doo mës a découragé ko ànd koo xam du du gëm gëm li mu gëm kooku boo koy seeti moo bëgg sax koy seet di phrase moo bëgg boo koy seeti nekk nit am nooy def moo tax musuma musuma xaat di benn yoon fu ma toll rek mu ngi koy ñaanal saa yi ma yewwoo suma juróom waxtu yi boo jullee maa ngi ñaanal Xalifa Sall yal na ko yàlla génne ci kos ndax na liggéey ndey dina dina dina sawe doom te liggéey ndeyam bu ko sawee du sonn du ma si sonn fenn te kaso sonn fa gëm na yàlla boole julleem bu le boole wooram macha allah macha allah liggéey na wala ko fa ak ñaanu turandoom wala ko ca kaso mu nekk ba yàlla génne ko. ban moo ngay wax ma Sall mi mi ko gracier. loolu bëgg a nag ci taalam ko terrassé jërëjëf yàlla moom pare na bu yàgg ba mu jotee yomb na ba muy yokk ba mu jotee yomb na ba dimbal dimbal ko yàlla euh, li Iran wax rek li papa Iran wax moom laa dëggal ba na gën a sii papa Iran waxam jooju rek chaque jour moom laay siibar boo mu ne xalifa kenn tëju ko yàllaa ko te bu jeexee la mu génn te bu mu jeexee génn na démb waaw. ñu doon wax naan gracier Khalifa Sall arrangé ko day handicapé euh, politique am. moom ko handicapé yàlla baax na yàlla borom sutura la yàlla borom sutura la. Ndeye Diaw soirée. tata Ndeye Diaw ñu ñëw fekk la fii que ñoom Khalifa Sall ci lendemain libération bi yow lanam nga. man sama doomu nijaay la. sa doomu nijaay lan nga yëg ba mu nekkee ci kaso bi ak tey jii ban ban sentiment nga am. mu nekkee ci kaso bi moom commencement ba métti woon na trop. amoon naa si naqar xol torop torop torop waaye keroog ba ma demee rek ba seeti ka toog ak moom mu wax ma dégg ba sama xel dal si moom sama xel dal torop ma xam ne kii ñu téye téye nañ ko fi ndax jaay doole waaye dina fi tooge ngor tooge fi fulla tooge fi jom ba lu ko yàlla defal mu jël léegi yow gracieux bi nekk na loo xamante ni arrangé na leen wala am ngeen ci xel ñaar. ah arrangé nañu arrangé wuñu ndax ñun jànguñu waaye li ñuy dégg daal ni dañuy téye àqam ak yelleefam moo ñu xaw a tiital daal jaaxal ñu waaw moo ñu xaw a métti mu doon suñu sagonoon ñu ko bàyyee ñu delloo ko léppam mu continuer ambition politique la am mu continuer ci ay politique ba lu ko yàlla may mu ban conseil nga koy jox pour ni mu war a doxalee. moom moo ma gën a xam moom moom li mu xam bëgg na ko te teg na ci bëtam te bu solo yàlla dina si teg tànkam bu dee liñ ko teg du faaw rek du abadan daañ ko gunge mu dem pale incha allah. nag ban wax nga ban message nga koy lancé ci gracier bi nga ko gracier. Macky Sall moom dañ koy gërëm rek gërëm gu yem. ngërëm gu yam ndax dafa waroon def lu jiitu lii ndax yàgg nañ ko ñaan ñuy manoon na ci dara nag xamuñu nag day soog a mënam déet waaye yàgg nañu dégg ni man na ci moo ko fa bàyyi ku ci waxoon mu génn comme nag yàllaa ngi koy soog a dogal mu koy soog a génne ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant mais du torop nag gërëm gu yam. tur bi sant bi. Astou Seye Thiam ñu ñëw fekk la fii kër Khalifa ci lendemain libération yow lanam nga. man sama mag la. nan la yéen a bokk nawet bi. ay famille lañ. Euh, ban émotion ban sentiment nga doon yëg ba mu nekkee ci kaso bi ak tey lan ngay sentir. xanaa mu naqadi ma lool naq euh, li ma naqadi doole bi ñu ko jaay rek moo ma naqadi waaw nga xam naa ni dafa waxul mais doole lañ ko jaay moo taxoon bi mu nekkee ci kaso bi mu naqadi ma tey nag ba mu génnee sant nañu yàlla bu baax sant bu wér waaw boole ko ak kontaan léegi gracier bi arrangé na leen. lu am yàlla la. ji nga lii lu yàlla ni xalifa lii lay nekk doomu aadama mën ci dara waaw ñëw rek dogalu yàlla la. ci côté politique am laa wax ba xam ne arrangé na leen si wala arrangé wu leen. laa la wax nee rek yàlla la suñu arrangé yàlla la bu ñu arrangé wul yàlla la lu yàlla ni xalifa lii lay nekk doomu aadama mënu ci daal Macky Sall mi ko gracier nag ban message nga koy lancé. ah ñun dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla yàlla ko fa dugaloon yàllaa ko fa génn sant yàlla rek. Macky Sall. dara wax ma ko dara. déedéet waaw ñun dañoo gëm Rita Rita Rita. ñu fekk la fii ci koñ bi sànq ngay jubilé ci liberation Khalifa Sall bi. Ah, ñun fii lañ dëkk muy fierté si Grand Yoff fii la xalifa Ababacar Sall dëkk moo tax dañoo war a jubé instant jeexagul de dañoo ñu ngi doog a door. lan nga doon yég ba mu duggee ci prison bi ak lan nga yëg démb. non dañuy dolli di sant yàlla bu baax bu baax a baax sax mayee ko métti woon na trop ndax yàlla rek lay teg yàlla moom doomu aadama sa ku bëgg rek lay teg nattu bu la bëgguloon du teg nattu. mais tam ñu leen ñaan tam ci libération bi tamit ñu kontaan ci bu baax di ko gën a dolliwaat di gën a santaat yàlla man nee la ku dul yàlla rek gëwuma keneen moom laa gëm ndax moo ñu sàq. lan ngay wax Macky Sall ci gracier bi. grâce ñu de Macky grâce ñu de te ñaanuñu ko tamit si ñëwuñu de moom moo waxoon su ko neexee mu génnee ko daka neex mu génnee ko mais ñu benn grâce Macky ah dañ koy ñaanal na <laughs> Sénégal am jàmm rek <laughs> merci beaucoup ci boobu. <laughs>